ñu nag loo xam lu safaan ñun ànd ñu ci tey ànd ñu suba kenn du ko jël waaw nekk nañ benn bolof daal boo xam ne suñu téere même ku ko soxla na nga ñuy toog def consensus parce que consensus mooy lépp àddina waxtaan la te maa ngi laajte senegal yëpp quatorze régions yu nekk biir Sénégal nañu xam ne suuf si dañu ko war liggéey mu suqali senegal lii laa amoon di leen laajte senegal yi di wax ñàgg Paul ñu ngi dal ñu ngi dalwee le président de la République Macky bu ñu mënul bu ñu ko mënul toog ak moom tey suñu xol yëpp paysage rural yi public moo ñu ñor ñun keekuñu ak kenn kunuñu ak kenn bar bi tam commune 19 bi tam kenn ku nekk war na teg xalaat commune 19 parce que commune 19 yàq na lu bëri waaye nag ci suñu jàngat li ñu gis bu ñu yàlla maye jàmm ba mu saaf ba mu wér bi mu ci am njàngat ci commune 19 yàlla nañ yàlla may mu jóge fi ñu koy nettali di ko nettali suñu maami maamaat yi